alaikum, Wa groupe développé le Sénégal aujourd'hui Inch'Allah, nous dañuy indi concept qui xam de la politique autrement c'est-à-dire dañoo bëgg Sénégal euh, concept de nous am ci politique nga xam ne ñu de dañuy xaar ñuy fal pour ñu commencer liggéey Nous bëgg le Sénégal parti politique yi nga ñoo Sénégal boo ay parti politique yu parti politique militants léegi nag dañoo bëgg ci concept bi ñuy neneen rek di xaar ñi parce que concept bi day avec nos militants pour montrer notre expertise par des réalisations sur le terrain moy ñun dañu wara fexé moy parti politique yi seeni militants yi nga xamné ñom lañu am seeni sympathisants ñi fexé di woné niñ mëné ci ay jëf yo xamné ci terrain bi dañ koy gis moy ay mbir yo xamné ay réalisation la yu jëm ci sétal réew mi yu jëm ci walu rafetal réew mi lu jëm ci walu entretien lu melni création d'emploi lu melni tek ay mbir yo xamné ku ko gis day xam ni ñii ay liggéeykat lañ soo demee ci dëkk yu bëri euh, pour nekk fa président day fekk nga nekkoon gouverneur ci benn réew benn état wala benn gox prouver wane li nga mënee ci noonu ngay demee ba nekk njiitum réew kon jékki-jékki di laaj njiitum réew te mosoo am expérience ci euh, gouverner wala taxawal ay mbir yu wér na yow mii ku mën nga lu mel noonu dañu war a fexe mu jeex fi kon ci biir wax ji ñi ngi naan maa mën maa mën te mën a def defal kon loolu li muy tekki mooy parti politique yi su ñuy bëgg ku leen voteel dañuy taxaw naan voteel ñu boo ñu votelee danañ def nangam ak nangam ak nangam danañ changer réew mi danañ nangam alors que mën nañ def parce que ñu bari ci ñoom ñii ay millionnaire lañ ñii ay milliardaire lañ ñii am nañ ay militants yoo xam ne am nañ xaalis kon bu fekkee réew mi leen tax a jóg jaratul ñuy xaar nekk ci jiite pour mën a def def moom luñ yombal la ku bëgg créer da entreprise kenn du la wax doo fi créer entreprise ku bëgg seetal réew mi kenn du wax doo ko fi seetalee ku bëgg embellir réew mi kenn doo doo ko fi def kon lépp luy jëmale réew kanam parti politique yi dañoo war a taxaw ak seeni militant di ko def loolu sax mooy tax soo jiitee réew da nga xam ci say militant ñi nga xam ne ay liggéeykat lañ ak ñi nga xam ne ay waxkat lañ da nga xam ni ñoo xam ni bu méttee ñu daw ak ñoo xam mu méttee mu neex dañuy des loolu mooy indi soo jiitee réew mi ci xam-xam nga koy teg parce que ñi ngay jiital ay nit ñu am xam-xam lañ ñu am expérience lañ boo xoolee suñu réew yi bëri na ñuy jël réew mi bu ñu jëlee réew mi teg seen i ñooñ seen ñooñ yi après bu ñu dawalee tuuti gis na seen ñooñ xamuñu dara ñu jëlaat ñi nga xam ni ñoom lañ doon wax naan xamuñu dara ñu jëlaat leen. kon loolu lu muy tegtale day tegtale ne concept bii bu fekkee nit ñi ñi ngi koy jëfee dana tax suñu réew yi gën a jàkk parce que bu boobaa ñiy jiite réew mi dañuy nekk ay nitu xam-xam dañuy nekk ay nitu d'expérience ay ñoo xam ne réewoo leen tax a euh, intérêt général moo leen tax a kon le Sénégal mu développé suñu intérêt la ñun ñëpp moo tax ñu ne le développement du Sénégal d'ici 2026 c'est notre affaire à tous ñun ñëpp ko war a jël def ko suñu mbir pour ne lu war a mën a ne la kon dès 2026 agissons maintenant nañ ñëpp commencé jëf tey tey tey tey jaa ngeen jëf.